nekk nekk leen ci rek nekk leen ci rek day gën a neex rek di gën a baax di gën a sell di gën a <laughs> bàjj na rek nag <laughs> man yàlla ak yonent bi rek waaw di jaamu yàlla di borom di di jaamu yàlla liggéeyal yonent bi lépp te yàlla tax barab bu ñu naan ENA ñii fa lañ nekk ba léegi di jàng waaye ñii génn nañ fa ba nekk ci yeneen barab di liggéey ña génn it bàyyiwuñ liggéey bi dañoo xam ne dañoo nekk ci liggéey bi sëñ Tuubaa moo tax ñu ànd ko nekk ci biir liggéey ba di ay rek ñoo fi nekk loolu moo waral jataay bi Mbàkke nga sàkkoon ñu sàkk woon ko jëmmi sëñ Tuubaa moo tax kenn ci jëwrin yi mooy sëñ Xaadim moom lañ bëgg a jox kàddu sëñ Seexuna mi nga xam ne moom lañ ànd liggéey bi di sa jarbaat di sa lépp di sa sët euh, mu yëkkati ay kàddu bu noppee sëriñ xaadim mi nga xam ne mooy jëriñu mbooloo mépp wax ci kaddu ci turu mbooloo mépp ñu noppee waaw sëriñ xaadim waaw. xaadim Guèye waaw mu noppee mooy wax ci turu mbooloo mépp incha allah bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Mbacke ñu ngi lay ziar bu baax. mbooloo mi daayira ENA ak CFJ moom lañ daan wax ENAM ñi nga xam ne moo boole woon administrateur yi ñu daan formé ak ñi def magistrature léegi nag bu ko tàggalee ñu koy wax NACFJ mooy magistrat yi ak euh, yeneen administration yi. Euh, lii nag mbooloo la moo xam ne ñi nga xam ne ñi ngi formation ak mboolem mbokku taalibe boo xam ne jaar na ENA ba def formation ba pare ba nekk liggéey bi ñoo ci ànd ñëw ziar si la ziar bi dañ koy def ku fa teewal suñ Tuubaa dañ ko def at mu ne wala ñaari at yu ne. Euh, ma lay seedeel na nag am liggéey bu rafet ma nga fa ndax semaine bu jot mbokki taalibe ya fa nekk ci formation danañ dajaloo wàccee fa kaamil kuréel fa. te loolu bu jamono demee ba daara ju ñuy wax ENAM nga xam ne loolu dafa mën a am tawfeex ak Sëñ Tuubaa la waaw ñii fi nekk ñi ñii fi nekk ñëpp nag liggéey Sëñ Tuubaa rek moo leen fi indi waaw nga fasal leen ci. waaw bëgg fasu daal loolu daal moo moo moo mooy li war a liggéey bi waaw sañ Xaadim mii nag moom it nga mi ngi doog a pare moom moo nekk ci formation promo bi nga xam ne ñooy door pare moom mooy jëwriñ ji moom itam di jàmbaar loolu ci liggéey bi waaw xam naa dana tënk kàddu gi. waaw bisimilah sëñ Xaadim. bisimilah barke borom Touba Mbacke ñi ngi ziar bu baax di sant bu baax a baax a baax di ñaanal di la ñaanal suñu borom defal la fanu gudd lool ak wér Mbacke ba yéene bi nga am ci liggéey bi nga defee ko nu kawe sa njort Mbacke ndax mooy suñu ndam waaye mooy ndamu yoonu murit waaye mooy ndamu mboolem jullit yàlla na la ko suñu borom defal Mbacke sant nan bu baax a baax a baax kaddu yi mënut a weesu ay yu sant ak taalibe ci kanam. sangam sant rek lay mën a def waaye Mbàkke li ñu seeyee ne mbooloo mi ñu àndal mooy mbooloo waa ENA ak waa CFJ buñ ne ENA mooy fi nga xam ne fépp fa la ñuy former ñi yor responsabilité nekk ci wàllu administration méngoo lool ak tur bi nga xamante ne joxoon nga ko daara ji muy jaamul amaanaati kon loolu ci biir mbooloo moomu am na ci ñuy liggéey ci waa impôt domaine amay inspecteur impôt domaine amay contrôle yu topp ci ñoom di liggéey ci wàllu impôt domaine am ñuy liggéey ci wàllu administration générale mooy gouverneur ak préfet bi yëpp ñu ngi ci mbooloo mi am ne ñu ngi liggéey ci wàllu trésor di saytu koomu réew mi am ñuy liggéey ci wàllu travail sécurité sociale maanaam di saytu li jëm ci wàllu xëyu ndaw mi ak toppatoo seeni carrière am na ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci wàllu enquête économique ñooñu itam lépp lu jëm ci wàllu commerce ñi ngi koy saytu mbàkke buñ demee ci wàllu CFJ maanaam ñi nga xam te ne mooy magistrat yi am na ñu fa nekk ñi ngi ci biir kuréel gi am na ñi ñuy tuddee greffier ñoom it ñi ngi liggéey ci tribunaux yi ñi ngi ci biir kuréel gi am ñuy tuddee éducateur spécialisé ñoom itam ñu ngi ci biir kurél gi ñooñu ñëpp Mbàkke ni nga ko tënkee ci tur bi di ay boroomi responsabilité fas yéene ko jariñ réewu Sénégal waaye balaa laatoo loolu ñu judd doon ay taalibe Sëriñ Tuuba fas yéene koo liggéey la Serigne loolu itam Mbacke du mën a ne mukk lu dul nga xool mbooloo mi bëti yërmande te ñaanal leen Mbacke ba responsabilité yooyu ñu jëmale ko ci xalaat xalaat luy jariñ yoonu murit ëllëg Mbacke barab yooyu doon na barab yoo xam ne ku fa jaar xalaat nañ ci yow nga doon boroomi xalaat yàlla na nga ñu ba sunu xalaat yi bu mu xalaat lenn lu dul liggéeyal Serigne Touba ba sunu xalaat yi bu mu doon lenn lu dul sàkk ngërëma Serigne Touba te loolu itam ñu ngi koy sàkku ci mbooloo mi sëñ bi ñaan ko ñu dox jëm ci di xalaat ci yoon wi lu koy mën a jëmale kanam duñ ci yem ci feek suba ginnaaw suba waaye fukki feek fukki at feek ñaar fukki at ñu mën di xalaat loolu rek lan mën a fayee sëriñ Touba ndax Touba bi la mu bëggoon ci ñun mooy buñ jàngee suñ xel yi dëpp dooni leneen waaye sëñ Touba da koo jiitu ci ñun ba mi ngi nii tey ñu sukk ci kanam sëñ bi yori diplôme waaye teewul ñu sàkku di doon ay murid Sadim Mbacke nga ñaanal ko mbooloom bu baax a baax a baax ñu ngi lay sant Mbacke bu baax di la gërëm. wuta xam yàlla. wuta ak sàkku ngërëmal yàlla. ak sàkku ngërëmal yàlla. loolu mooy taalibe loolu mooy ak taalibe. kooku mooy taalibe. mu ne kooku mooy taalibe. xam ne waxtu ne mi ngi mi ngi sàkkoo xam yàlla. mu ne waxtu ne day mi ngi sàkkoo xam yàlla. mi ngi sàkku sàkkoo nekk ci lu yàlla gërëm. waxtu ne mu nekk ci sàkku lu yàlla gërëm. kooku mooy taalibe. ak taalibe yéen da ngeen koo donn. mu ne yéen nag da ngeen koo donn. jikko woo ko jikko woo ah, mu ne fa tabaarakallaahu. xel dal na ci yéen mu ne xel dal na ci yéen bu baax. yaakaar ci li xam li ñu mu ne kon li ñu xam ci pàggu def sëriñ Tuubaa. yéen yéen a jumtukaay mu ne yéen yéen a jumtukaay ya. noonu rek la demee noonu ngeen ko xame noonu na ngeen ko xamee noonu. nekk ci noonu te nekk ci noonu. dégg ngeen dégg ngeen li mu bu baax. waaye dégg ngeen ko bu baax. waaye dégg ngeen ko baax a baax. noonu rek la demee <laughs> fa tabaarakallaahu mu ne xolam sedd na xelam dal na mu ne mel na ne am na yaqin ci li jëm ci li ñu jëm ci liy defar réew mi ci liy defar réew mi defaru gi nag mu ne defaru gi nag munta am ci lu dul yàlla jiitu ca rek mujj ja mujj ja ah, mu ne noonu rek la mu ne sant leen yàlla baax nga am naa yaqin ne pàggu def Serigne Touba la. loolu seen lépp mën na cee defaroo. mu ne loolu seen lépp mën na cee defaroo. te da ciy defaroo sax. te da ciy defaroo nag. biir ak biti. tey àll tey ak ëllëg. noonu rek la demee. góorgóorlu leen mu ne góorgóorlu leen baax rek. xam ne euh, euh, liggéeyub sëñ bi ngeen yor. mu ne te ngeen xam ne liggéeyub sëñ Tuubaa képp ngeen yor. liggéey yoru leen liggéeyu état bi mu ne yoru leen liggéeyu état bi de. waaw loolu ci biir rek. mu ne loolu daa nekk ci biir rek. liggéeyub sëñ bi ngeen yor liggéeyub sëñ Tuubaa ngeen bisimilah. ñu tàmbalee loolu. mu ne ñu tàmbalee loolu. jërëjëf lii addi mbooloo mi la ñetti million yéen ñi fi nekk. kenn ku ne. kenn dogal mu def ci yow. mu ne la yàlla dogal mu def ko ci yow. muy sëriñ bi muy sëriñ bi. moo ko gënal ay milliards. moo ko gënal ay milliards moom sëriñ bi. ngeen gën a xam mandarga wi leen fi dajale. loolu mooy. loolu moo di. Seexuna Géey mii. yàlla dogal ci seen coobare bopp. mu ne yàlla dogal seen coobare bopp. ngeen jiital ko. moom maamam Cheikh Adama Gueye. moom la sëñ bi njëkk a feeñu. moom la sëriñ Tuubaa njëkk a feeñu. sant ko mu ko mu sant ko mu jébbalu. sëriñ bi mooy maam sëriñ mooy maamam. jiital ngeen ko jël lu yàlla mu ne te jiital ngeen ko jëlal lu yàlla dogal rek la. mu nekk ci yéen. mu nekk ci yéen. ngeen defal ko seen ngeen defal ko seen bopp. loolu na mandarga. mu ne loolu doy na man mandarga. ñu gëm seen taxawaay bi. ñu gëm seen taxawaay bi. am te dana am njëriñ. ne dana am njariñ ne dana am njëriñ. dana amal njëriñ réew mi. dana noonu rek la demee. fi ngeen toll. sëriñ bi nekk ci yéen. sëriñ bi nekk ci yéen. yombul taw tawfeex rek la lu yàlla def ak coobaram rek la mu ne kon na ngeen xam ne lii yëg na ko bu baax mu ne waaye it na ngeen xam seen bopp mu ne xam ngeen ko sax ngeen di ko gën a xam rek seen diggante sëriñ bi yori ngeen jëf. ne ko na nga jóg wax ko ba la mépp dégg ko sëriñ Xaadim dafa wax ne mu ne bi sëriñ xaadim di wax mu ne day lim koor yi fi nekk benn par benn mu ne xelam dem ci nim laan den wooyee bi mu nekkee moom ci gouvernement bi mu ne yéenay constante de la république yéenay sax ku décret fal bu ñëwee fekk leen fi ku ñëw kuñ fal bu ñëwee fekk leen fi bu demee bàyyi leen fi ginnaaw alalu sëñ Tuubaa ngeen loolu rek la wax sëriñ bi ne ko na nga jug boo wax ko mu ne ginnaaw alalu sëñ ngeen kon réew mi alalu sëñ mu ne ku ñëw fekk leen fi waaye kuy damit bay leen fi jërë ngeen jëf Yeah. nekk nekk leen ci rek nekk leen ci rek day gën a neex rek di gën a baax di gën a sell di gën a <laughs> bàjj na rek nag ilayka ya xayral bariyati salaam xadimika allazi lana asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi ziar mbokk taalibe yépp di ci jiital kilifa yi fi nekk di santaat yàlla sunu borom bu baax mi ñu may ñu teewe ziar bi te yaakaar na defe nañ ko ñu kawe njort yàlla na ko sëñ bi nangul te buñ ko nangoo yàlla nañu sëñ bi may xool ñu ko jëfee waaye cër itam yu ko mën a jëfee ñu ngi sant mbokk taalibe yëpp ci dal gi ak ci ànd gi nga xamante ne ànd nañ ko waa daayira jaamil amaanaati ngir ñëw ziar xalif général des mourides Cheikh Mouhamadou di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool ba yéene jim am liggéey ci liggéeyu maamam bi mu defe ko ñu ko bëggee kon ñi ngi sant bu baax dañuy bañ a tasaaroo ci tasaaroo boo xamante ne liñ fi tënk daa desee am jeexital ci mbooloo mi moo waral jataay bi ñu bëgg koo tënk kaddu yoo xam ne bu noppee dañ koy tasaare ba ñëpp mën koo bàyyi xel waaye fas yéene koo jëfee kon bu ko defee niñ fas yéenee doxale waxtaan yi mooy day joxe imaam mu daal di tijji daal dawal ay kaddu soññe bu ñu noppee jox sëñ naa Gueye mu def lu ni mel jëmale ci mbooloo mi waaye bu ñu noppee it sunu kilifa suñu jëwriñ di sëñ Camara Fall na sànnee kàddu laata ñuy tënk jataay bi bu ko defee ñu daal di jege ca jumaa ja daal di def suñuy ziar bu ñu paree daal di jege ca daamare daal di dellu Ndakaaru incha allah yàlla na suñu borom defal jàmm salaam kon ñu dox rek sëñ imam mu daal di tijji def ay kàddu soññe bu ko defee ñu tàmbali waxtaan. Euh, mbokk taalibe yi ñoo ngi sant suñ borom subhaanahu wa taala bu baax euh, cant gi am na fu muy tàmbali amul amul fu muy yem ndax daayira bi bi ñu sëñ bi di jox tur bi muy amaana boobu ci lañ ko ziyaare woon sëñ Bas Abdou Khadre yàlla yàlla yokk euh, wéram may ko fan bu gudd lool mu junjuñu ne daayira dañ ko war di pérenniser. di ko saxal ndax du promo bu ñëw rek da ngay dem keneen ñëw war ko sancaat dañu war dem mu nekk loo xam ne day solide day continuer loolu la ñuy junj bu ñu demee ci bi ñu euh, gaaral ko loolu mu jox ñu tur muy amaana comme ni ko sëñ Xaadim waxee muy tur boo xam ne day soññe ndax amaana mooy responsabilité responsabilité nag ci ñëpp la gàllu ñu neex ci daayira bi. 2016 2018 je pense ah mel woon ni réussite bi amu ko woon chaque année rek day gën a yokk di sant rek di sant rek euh, sëñ Xaadim ñoo ngi lay sant di la gërëm ndax moo jiite daayira bi bi passé te yombul jiite yombul jiite yombul mais pas pas pas rek mooy war mbir yi jëm kanam te pas leer na ci ay kàddoom tey. kàddu yoo xam ne ci xolam la ko jëlee kàddu yu leer kàddu yoo xam ne wax dëgg yàlla day soññe wax dëgg yàlla liñ ci mën a wax bariwul trop kàddu cant ak gërëm sant ñëpp gërëm ñëpp di ñaan ñu fekk ko ay déwén déwén dem ba suñuy doom ak suñuy sët di ko taxawee dem ba ñun ñëpp yàlla defal ñu taw féex defal ñu sutur defal ñu xéewal di sant soxna yi di sant ñëpp ñu fi teew asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Uh, jërëjëf imam uh, asalaamaaleykum wa rahmatullah di ziar bokki daayira bi yëpp kaddu yi nag di ne ko sañ xaadim waxee liggéey bi moom maa ngi jottali mbooloo mi yëpp rafetlu ku ko sëñ bi rafetlu dëgg yàlla. ndax uh, daayira bi ren addiye ji nga xam ne ziare nañ ko sëriñ bi mu ngi toll ci ñetti million may yégal ñëpp nag na leen sëriñ bi sant na te defe naa ne kàddu yi ma yëkkati itam wane na ak cantam fu mu toll ak yéeneem fu mu toll ci mbooloo mi kon loolu nag ak cant la. te kon jàpp naa ne képp koo xam ne sama borom boole na la ci liggéey Sëñ Tuubaa bii booy boo nga sant yàlla te xam ne lii bokk na ci liggéey yi gën a sell ci liggéey ñu liggéeyal Sëñ Tuubaa ndax ki fi toogal Sëñ Tuubaa li mu wax ah man de mosuma ko dégg mu wax lu mel nii ci benn ci benn menn mbooloo kon loolu ak cant la. te itam di gën a soññaat ci mbooloo mi itam ñu xam ne liggéeyal Sëñ moom rek mooy li am njëriñ mooy li am njariñ àddina mooy li am njëriñ alaaxira ñu ko sëñ bi waxee ndax Sëñ kat li mu diggee ak li mu dëële man na ko te attan na ko te itam képp koo xam ne liggéeyal nga ko ba àllëg ba yemal xiyam danga xam na liggéey nga ku mat liggéey ku mat a liggéeyal te ko am fay ndax suñ tubaa kat bind na ne sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafihan li xawmi wa an akuna xaadiman fi daw mi suñ tubaa nee na sama tukki bi wala boog ñu ngi liggéeyam bii li ko waraloon bokk na ci di ràmm aw xeetam donc suñ tubaa mën nañu coono bi nga xam ne dañ ne ko ci àdduna yëpp ci àddunaam yëpp nga xam ne dundam gépp daf koo nekk amu ci benn yoon boo xam ne am na ko liberté te moom bu doon jëmi boppam jooju dong avant mu ñëw àdduna la ko sama borom jéggal lépp kon coonaam bi mu daj ci dundam gépp ni mu ko waxee noonu demee ramm ramm aw xeetam ramm jaam yi rek moo ko loolu donc taxaw na jug kon kooku nag gëm naa ne àdduna bu amee kenn koo xam ne jar na sonn jar na def loo man ak loo mënul mooy ki nga xam ne sacrifié na dundam gépp ngir rammuñu te tawfeex jooju gëm naa ne sama borom namm ci ñun yërmaane moo tax mu boole ñu ci. kon lii mbooloo la moo xam ne muy muy mbokk taalibe yi war a ñëw muy mbokk taalibe yi nga xam ne jaar nañ ENA ba génn ak ñi doog ko génn liggéey bu mat a fonk la képp ku ko fonk dañ ci daje ngërëmal Sëñ Tuubaa ba loolu wéy itam ñuy fàttaliku mbokk taalibe yi nga xam ne ndëgëni daaw àndoon nañu ak ñun ziar bi te sama borom ren te yàlla sama borom yàlla dogal ren fekke ko ku mel ne soxna Selbe ñu xam ne loolu itam àggale nañ ko sëñ bi yéene ji mu ñaanal mbokki taal bi nga xam ne ñoo daan ànd liggéey sëñ Tuubaa bi te ren fekku leen ngi leen ciy fàttaliku ñaan mboolem yool boo xam ne am nañ ko ci ziar bii yàlla nañ yàlla nañ ko bokk ak ñoom ak seenu njaboot jërëjëf sëñ Xaadim waaye daal ñu ngi sant mbokk taalibe yëpp di sant kilifa yëpp itam di leen tuubal kaddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkat ci seen kanam kàddu yi nag ay kàddu soññe lay doon ndax doomu aadama dana def loo xam ne baax na lool mu ziar bi nga xamante ne ziar nañ ko kilifa mu Cheikh Mouhamadou Mountakha xalif général des murit di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér waaye la ci ëpp solo mooy kenn ku ci nekk ci ñun lan la jëlee ci kàddu yi nga xamante ne Cheikh Mawone Mountakha yëkkat na ko jëmale ko ci mbooloo mi loolu yaakaar naa ne mooy li ci ëpp solo nañu bàyyi xel itam ne jëmmam ji di Cheikh Mawone Mountakha àdduna taxu koo jóg loolu maamam ji Sëñ Tuubaa waxoon na ko waxoon na si ce n'était pas pour les fils d'Adam je ne passerai pas une seule nuit sur terre mais n'abusez pas de ma condition d'homme noir pour ne profiter de moi car je suis un serviteur éternel du prophète et chaque génération aura la certitude que je suis venu pour elle loolu nag bu ko waxee mooy ñun doomu aadama yi ñoo tax ñuy wax kon nañ ko bàyyi xel xam ne liggéeyal ko rek moo fi am solo du leneen lii xew tey nag muy ñetti millions yi nga xamante ne yëkkati nañ ko jébbal ko Cheikh Mouhamadou Mountakha ab soññe la ci promotion yi fi jaar yëpp ci promotion bii waaye gën naa doon soññe ci promotion yi nga xamante ne ñooy ñëw ñooñu nañ xam ne yoonu sëñ bi amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la kon at mu jot war nañoo mën a yokk lim bi bu baax a baax a baax te loolu itam li koy def gëm naa ne organisation rek lay laaj ndax jàpp naa ne ziar boo xamante ne ñaari at ba ñaari at gën ngaa néew lay doon mbokk taale buy def weer wu ne nga denc junni bu ñaar fukki weer yi matee daanaka du mat ñaari at am nga ñaar fukki junni am nga 100000 francs boo amee ñaar fukki mbokk taalibe yu am 100000 francs am nga 2 millions kon yaakaar naa mbir yi du lu ñuy yéem ñàkk organisation la ak pas-pas boo xamante ne bis buñ ko doxoon tàmbaleeg sama jëm gëm naa tey danañ mën a andi lu kawe suñu njor loolu mooy doxalin bi murit day def loo xam ne lu mu jëf tey rek da koy fàtte teg bëtam ci leneen sant nañ yàlla suñu borom bu baax bu ñu defal ziar mucc ay bi wax dëgg ku seetlu kàddu yi ni mu demee xam ne ku yàgg a déglu sëñ Muntaxa xam ne néewaana lu muy wax jëlaat kàddu gi wax jëlaat kàddu gi wax waaye tey mbooloo mi da koo yóbbu ci àll boobu noonu loolu taw fi yàlla gu ñuy sant yàlla defaluñ ko suñu bopp sëñ bee ñu ko defal defal ko mbooloo mépp ñu ngi ciy sant ñëpp di sant góor yàlla di sant soxna di sant mag di sant ndaw waaye itam ñun nañ xam ne kàddu yi ñu ci war a jànge mooy bu nu àggee yeesalaat suñu pas-pas sëñ bi bu amee yàqin ci yow yow loolu yaa war a fexe ba doo ko décevoir ci benn yoon nga yeesalaat sa pas-pas ci fànn bu mënti nekk bu dee soxnaa nga sellal loo mën bu dee góor yàlla nga sellal loo mën jaamu yàlla bu la ci kenn mën nga fexe ba li nga xam ne dañ koy gàx ci sëñ mu bañ jaar ci sa jëm loolu kenn ku ne war na ko bàyyi xel ci ñun ñu xam ne itam danoo boole ñaari mbir muy àdduna ak alaaxira ala kulli haal mënta ñàkk ñu yeesal suñu jëmm mënta ñàkk ñuy bàyyi xel àdduna waaye nañ xam dañ fiy jaar rek jàll. sëñ Baye jaxat daraan wax naan diggante fi jant bi fenke ba fi muy sowe yilif fi jamono ak dem di yalwaan laa yemale ki nga xamante ne ñaari extrémité yooyu la yemale nekk fi président de la république wala nekk fi kuy taxawal tali bi di yalwaan la yemale kooku yaakaar naa àdduna tëgg ko fu sori loolu itam jar na ñu koy bàyyi xel bu baax xam ne àdduna lu mu gudd gudd lu mu neexa dañ ko fi bàyyi ëllëg yoo mën a xam bu ñu fa demee lenn fay jariñ doomu aadama yi ñun li ñu gëm ñun murid mooy liggéeyal sëñ Tuubaa kese te liggéeyal sëñ Tuubaa mooy fekk jëf ju baax juy dem lii ñu def ziyaar nga tàbbal sa ñaq loolu ëllëg bu ñuy fay mbooloom duñ la fay fayu kenn waaye fayu mbooloo lañ lay fay léegi maa ngi koy fàttali ci mbooloo mi ñaanu kenn nit amul solo ñaanu mbooloo day yóbbaale mbooloo mépp kon nañ xam ne loolu la ci ëpp solo kon nañ ko bàyyi te bu ñu àggee ñu yeesalaat pas-pas yi ñu xam ne daara ji du daara joo xam ne da bokk sa promotion bu jàllee nga daal di bàyyi loolu amut liggéey suñu a bokk amut bàyyi kon nañ xam ne loolu luy wéy ba faw bokk nga benn yoon nekk nga membre jaamil amaanaat day wéy ba faw loolu nañ ko bàyyi xel beneen bi mooy li nga xam ne ñu ngi ciy soññe mu jëm ci wàllu wàllu cellules yi bëgg nañ fi jógee képp ku ci nekk boo nekkee Diourbel nga fexe membre jaamil amaanat ya fa nekk maanaam képp ku jaar ENAC siège te ne Diourbel ngeen créé fa cellule Diourbel jaamil amaanat boo nekkee Kaolack nga def noonu boo nekkee Thiès nga def noonu boo nekkee Dakar nga def noonu boo nekkee Ziguinchor boo nekkee Saint-Louis Matam Kédougou ba 14 régions yëpp mat fu ci ne ñu am fa cellule jaamil amaanat ñi génne ENAC CFJ dana waral bis bu affectation génnee bépp membre bu ñu affecté région bu mu mënti nekk daara dana la jokkoole jëwriñ tel boo demee mu dalal la ba bu la xëccee ci liggéey suñu tubaab nga mën koo wuy waaye seetaan sa mbokk taale ba mu ne si jafe-jafe ba mbiri xaw ko wuy nga bëgg koo bi nañ ko ku koy coordonné région bu ne ñu mooy coordonnateur bi bu ko defee loolu itam bàyyi nañu xel liggéey bi nañ ko gën a taxawee kon ñu xam ne daanaka li ëppoon solo ci liggéey bi mooy ziar bi def nañ ko ba noppi fi mu dañuy fexe yaatal li ëpp ci pas-pas mbooloo yi mooy ñi nga xam ne sàkk woon nañ dem ci jumaa mag ji ko loolu la ñuy yaatal ci mbokk taalibe yëpp loolu moo doonoon kaddu yi di ñaan yàlla nañu sëñ bi defal tawféex ba ñu àgg ci jàmm ak salaam te bu ñu àggee yool bi mu bañee doon luy raaf ndax dañ naan aal ak maxaama daa wuute maanaam maxaama mooy loo xam ne boo xasee téye du wàcc ba faw àll nag mooy lii ma dal sànq dangay toll degré bii boo ca génnee defaat nii loolu la ñuy moytu nañ fexe ba lii ñu fi téye muy sell gi ñu gis sëñ bi bu ñibbee ñu téye ko mu bañ a ràpp donte benn weer la nga yeesal sa pas-pas bañ a dellu ci la nga nekkoon kon loolu mooy kàddu soññe ñu ngi tuubal mbokk taalibe yi bu baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp ngërëmal sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah

هديتي إلى جمعة صانية من المحرم الخطوف دانية هديتي إلى جمعة صانية من المحرم الخطوف دانية من لا